Lirou Diane eh kaay leen waaye. kii dafa mel Lirou Diane la de yow ça waaye yow looy fii. fii mooy marxadam gis yu rafet eh, lii am na classe de. fii mooy marxadam gold xale bu am jom am fulla am fayda moy Cheikh Badar nek ci amerique New York di liggéey te liggéey la xam. moy ma xam nga Cheikh Badar. wa may ma tuuti ma biir ma ñew yow il faut man mo non bàyyi ma ñew ndànk rek fekk na yaa ñew xara ma ñëw rek toog. ma ñëw ma bëgg naa ñu fekk la fi nga xamne moy marxatan Markhatan Gold euh, yow lan nga fi def ak lan loo fiy dox daal. bul ma laaj lu may def ci Marxatan Goldu ndax fii sama kër la dégg ma la fii soo ma fekkee ah, sama kër la comprendre ndax ki ko moom sama doomu ndey la sama xarit la muy Cheikh Badar tubaarikàlla macha allah xale bu am jom am la am fayda nekk Amérique di daan dooleem nekk ca New York ma fekk New York mu teral ma Cheikh Badar ndaanaat bu mag bi ñeeñoo bala mañ sa mag ba fii tubaarikàlla macha allah soo fi jógee loo bëgg am na fi muy or ak tubaarikàlla man su ma bëggee or damay ñëw takk. ma bëgg ma ñëw takk. waaw pour rafet yi gis nga yii yëpp fii la am. comprendre xool li ma takk nii lii lii xaa lii lan la or blanc lii la la or loo fii loo ma bëgg am ko fi muy xale bu am jom am fulla am fayda nekk ca Amérique di daan dooleem. tuxul naanul geesul te ma xamal la benn affaire Cheikh Badar yow laay waxal ñibbisil nag ndax Sénégal namu nan la ñeeñoo bala mañ sa bu mag bi nga am jom am nga fulla am nga fayda waa senegal namu nan la te gars yi nag bëgg nañ laa gis ndax xamuñu loo nekkee États-Unis ndax yàgg nga États-Unis yow man nga xam ni. sa doomu ndey laa sa xarit liiru jaan fekk la ba États-Unis gis la la ngay liggéey nga am jom am ful la Cheikh Badar ñibbisil waa Sénégal na mu a du nuyu waa Amérique gépp tamit du nuyu ko ci mel ne Mafal Baye Fall bu mag boobu ak Maadu Saw sama doomu ndey sama xarit Maadu Saw ndaanaan bu mag ba promoteur bu mag ba comprendre di du nuyu euh, jiili doomu ndeyu Cheikh Badar la jiili jiili doomu ndeyu Cheikh Badar la waa 116 yëpp ñoom al nu seen place bi ña fay toog Euh, ñoom euh, Mafal. Wilfé Mafal waa Amérique laay nuyu ndax soo waxee su ma su ma nekkee fii ci place Cheikh Badar sama xel danaan yar ci Amérique yar ci Amérique ndax Cheikh Badar suma doomu nday la nekk ci Amérique di daan doole fii nekk Canada may ma tuuti ma ñëw fii di Canada. waaw non danga may may danga may déglu yaa ma laaj. waaw wuyu ma. non du defal naa. danga may déglu nag. du ma la déglu ndax ba nga yàggee bëgg a def ak man émission yaa <laughs> ngay dox déglu ma ñaata yoon nga ma woo. ngay dox. ba gis ma dajeeg man. ma non la wuyu. première question bi ma lay laaj liiru da nuyoo nga wax li ngay wax ba pare da ngay tey ba ma pare yow maa ngi lay déglu doo def ndànk. bu ma yuuxu man teew ma làmmiñ non non dafa ndànk dama lay bu ma man sooy wax da ngay wax man normal comprendre nga. jigéen du rëy làmmiñ man vraiment. waaye góor tamit du mbet mbeti de. non non non non man du ma mbet mbeti dama lay wax fulla at fayda at li nekk ci man dama ne la. dama non déglu ma dama lay. wuy ma dama eh, ni sa problème ak ki nga xam ne mooy Khadim Ndiaye mbër lan mooy seen problème laa lay laaj ah, doo ma déglu moo expliqué bala ma waxee ay problème dama la laaj da nga may déglu man faalewuma la lijjantiwuma la toppatoowuma la man li may def yëpp man gis naa lu ne man dara jaaxaluma non dama lay wax dafa ndaa gis naa lu ne dara jaaxaluma dara jaaxaluma sa ajak sa ajeeg sa xaw ma da nga may sànni ajuma aji naturellement la si man li ngay def dafay mel ni ajak man soo may laaj da may def doucement def ma ndànk man ëppoo ma làmmiñ ma laaj moo wax la dama ne la Amérique ma nekkoon dama fa am ay doomu nday am fa ay xarit am fa ay su ma nekkee foofu su ma ñëwee nekkee fii place Cheikh Badar Cheikh Badar nekk ba Amérique New York ma am fay soppe am fay xarit am naa droit nuyu leen comprendre dama ne am naa fi rakk ñuy wax Mor Ndiaye ak nekk samay rakk ak directeur moo Ndiaye directeur kooku mooy sama ménagère ci NMA bi ak père Babou euh, jëkkëru mère Khady Faye euh, mère Assou Faye mère mooy yaayu Balla Gaye père Babou papaay Balla Gaye la këram laa daloon comprendre nga léegi euh, at sama waaja nu mu tudd xam nga tey jii man su ma lay expliquer su ma la waxee su ma demee at moo géet tam maa koy nuyu di ko ziar comprendre ak sama rakk ja Maadou Sow sama doomu ndey sama xarit Maadou Sow doomu ndey ma faal promoteur mag ziar kontaan at bégee nga ma fii nag ci Guédiawaye ci mar xatan goldu fii di Canada samay sama sama chef ndax su ma ne Guédiawaye dama naan sama chef la tubaarikàlla macha allah di nuyu sama doomu ndey Dieye Sène tubaarikàlla place sama ngi nii tout pare sorgul Dieye seen waaw euh, borom société bu mag bi nga xam ne soo bëggee pomme de yu baax Ah, ginaar waaw wuy ma da nga may déglu. déglu ma lan mooy sa problème ak ki nga xam ne mooy Xaadim Njaay mbër. dinaa la wax li nekk ci man at li ma yëg. li nekk si yow moom laa lay laaj. dama lay wax da ma man kilifa laa. man tamit kilifa laa. da nga may déglu man kilifa laa. man kilifa laa man doo kilifa. ndax soo yaa kilifa def yii nga def sa yu bon. dinaa def yii gis nga lii. xoolal dama di jigéen toll nu ma neex mel nu ma neex am naa droit fël fëlaale sànneeku def lu ma saf góndiwu ma la nag non si sa ngay dem ndax lii ngay def affaire góor la yow xanaa xamoo ma xamal la benn affaire mun nga fii ba nga wër fii ba déwén du ma mus a toog yi du ma def ak ndax dama soo may woo ni man ak ni ngay defee man laa xam ne yow wuyu nga kacapaa nga bandi nga mais bandi baax na jigéen ju ñuy wër ndax yow yaa ngi xool samay pooj di gees kan moo gees sa diggante yàlla damaa xool sa pooj yi yow <laughs> yaa ngi gees dama yaa ngi gees wuy ma la mooy sa problème dama lay laaj waa dafa daa déglu ma la xol booy dama lay bu ma fontoo soo ma waxatee yaa ngi gees ma la laay gees pooj ba nga am yaa ngi gees yow dimbali ma nga am yaa ngi gees wuy ma gees yow laay gees ma li ma waxaat bul ma ko waxaat ay yaa ngi gees non dafa ndànk dama lay wax bul ma waxaat yaa ngi gees rek ok bul ma waxaat yaa ma lan laay gees yow lan laay gees yow yow da may sarme man faalewu la man lijjantiwu la ngay biiñ ñii waaw bal ma àkk. waaw bal ma àkk lii. man gis naa lu ne lii ngay def. waaw wuy ma man li ngay wax yëpp ma dégg naa ko man bal ma ak dégg nga. voilà en fait man première question bi ma lay laaj lan mooy sa problème ak ki nga xam ne mooy. Xaadim Ndiaye Xaadim sax da nga naan ngóor si sant Ndiaye te dëkk Caaroy ngay wax la ne wax Xaadim ñun ay taalibe lañ dañoo yar ngóor si sant Ndiaye nga te dëkk Caaroy bandi la wóyu la kàcc paa la xanaa xam nga da ko a woo tëj ko ministre da ko waroon a woo gaal yi ngay def nii cook ah boo yi dem ci géej gi nii da leen di iri di leen woo di cook la cook sóoru gaal la kooku Macky Sall da ko waroon woo wala ministre intérieur ñu tëj ko ci kaso bi may wax ah, ministre bi mataar Ba du ko boole neen da ko boole CNG o oh, Matar Ba warta woon a def loolu war ko woon a boole CNG xaw ma Matar Ba la xaw ma président CNG bu bees bi ñoo ko war ñoo ko boole seen waaye waruñu ko war a benn seen ndax kooku cook sóoru gaal la booy dem ci géej yu bari ci moom la ñuy jaar kooku sooru gaal la booy yu bëri ci moom la ñuy jaar voilà moom jotu maag moom dara mooy yàq sama dara di ma waxal wax bu ñaaw te wëyu la kacapan la geesman la man maa ko wax ngóor sant Ndiaye te dëkk Caaroy ok geesman la pire fekkee fu muy oh, ku jóg mu xas la te moom wëyu la kacapan la kooku sóoru gaal la booy yi dem ci géej dañ ko war a woo mom dañ ko wara a wax ak mom tecc war nañ ko wo war a ci kasso bi ndax boy dem ci geej gi yëpp dem ci geej yëpp mo leen di iri ah lool mom c'est pas normal si moom jaar kooku sóoru gaal la kooku sóoru euh, deuxième question bi ma lay laaj lan moy sa problème ak nga xamne moy mooy parce que mom neena yow da ngay door ken sacc doo waxi burgeel kooku du mang ngi ngi nuyu sama serigne bi sama soxna ci muy nak fallu fall ak sëriñ si ji ak fall ndax dañ cey def lu baax jox ci jéegu ci dox ci ay jéego wooñu bour moma toñu tooñoon bi ñoo woyé soxna si woolu ma ne ma dama la soxla ñëw fa sëñ bi dafa may seet ma daal fay yow daal fay seet daal fay ñëw te après sëñ si mu ne ma sëñ siir dafay ñëw mis tuuti buur fekk ma fa non la da demee après moo ma tooñoon nag moo ndax moom magum jën mënu sàcc mu ne kenn sàcc la da ngay dóor waa léegi baal nga ko wala baaloo non man de baal naa ko waaye euh, dafa ñaaw ndax day toog fu muy toog dafa jéem a sama der ñu ma koy wax rek mm, maanaam dafa toog daal di yàq sa der di wax loo xam dal amul dal. voilà léegi après yow noo def di di di di nar di nar. léegi après yow loo def yow. lu ma def ci lan. li nga def ci moom nga xam ne mu ngi toog di yàq sa der loo ko wax. non non xuloo moom xuloo la rek. ndax doon xuloo li ma ko waxal. ilaa yomi di naru ma ko koon a waxal ndax ba ma koy def ma sàmba yëgul ma dem ba yëgul waaw jàll ci benn paas ndax loolu jeex na ndax kilifa moo ñu toogal xaar ñu boo am na yoo xam ne euh, dëgg la euh, troisième question bi ma lay laaj lan ngay euh, lan nga xam ci xale yi nga xam ne ñu dugg ci gaal yi naan dañuy. waaw li leen ñaanal at li ñuy wax mooy ñun ay doomu Sénégal te ñun dañoo bokk ci réew mi ñun tey euh, su ma la waxee benn affaire Sénégal lu mu metti metti metti metti moo tane dem dugg ci géej ndax géej gi xamoo loo fay fekk te metti na gis nga ñi fay dem yëpp gis na muy deme te Europe mën naa wax ni du ma leen neexul sax du ma leen neexul waaye mën naa wax ni man euh, yaakaar naa ni ah euh, na mu neexewoon bu njëkk neexatul noonu ndax tey li ngay fay di dem ci ay gaal soo ko toogee fii yàlla mën na la ci dimbale nga toog nga liggéey. man loolu laa gis vraiment sama rakk yi sama xarit ndax am na ci ay rakk yu ci dem muy rakku lees bi ndeysaan yàlla ko yàlla xaare àjjana si la gaañoo ak ñeneen ak ñeent sama am naa ci ay fans tamit maa leen di ñaanal yàlla na leen yàlla xaare àjjana man daal su doon sama sabo ñu toog fii senegal ñu toog ñu liggéey man loolu laa bëgg ndax Sénégal métti na trop waaye lépp dina baax te it ay xale la ñàkk gunu dara man loolu laa xale yi ay xale la ñàkk gunu dara nan toog fi ñu liggéey te xaa ngóor si dëkk Caaro yi nan ko woo ndax kook sooru gaal la day day yóbbu xale yi ñuy yóbbu xale yi ci la bokk nan ko woo wéyu la kacapaa la bandi la nan ko woo. yow fan nga teg loolu. non non non laa teg loolu mooy dama euh, dama ci am ay source dama ci am ay source yu leer yu leer. waaw léegi wax ma benn source boo xam ne leer la. dama cee am ay source yu leer caaro yi lu fa yend rek fanaan si man. yow muy dox yëpp xam naa ko. ah bon waaw ah, ah maanaam dafa mel ni beneen deuxième liir moo fa nekk di la informer. non xam naa la fa nekk di gërëm sama benn waay président Mamoud Kañ président Mamoud Kañ doomu nday Saliou Khoule président Mamoud Kañ doomu nday Saliou Khoule sama xarit la sama waay la voilà ak xaadim ndax euh, gis nga ma xamal la benn affaire gaal yi dafa metti neexul neexul ndax xamoo looy fekki xamoo looy fekki xamoo loo fay fekk ndax géej amul bànqaas géej amul bànqaas léegi daal li ñuy ñaanal xale yi daal moom wax dëgg yàlla ñu toog ñu liggéey rek yàlla baax na lépp dina baax incha allah lépp dina ñëw lépp dina ñëw ndax il faut gars yi génn autorité yi ñu fi nekk Sénégal yàlla may leen ay tranga ñu génn jàppale xale yi ñu liggéey ku ci mel ni Aziz Ndiaye gis na ni muy def ñaata jeune la jël deen liggéey loo deen fay loolu su koy ñeneen defee jëy seen mi ngi koy def employé la fii la yor ah, bën a bëgg euh, kii baa ngi nii nu mu tuyanti euh, baa ngi nii ci Canada fii Dieye Sène Dieye production comprendre lolou ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di ko Aziz Ndiaye du moomam Sador. waaw ñoom ak ñeen ñoon ñeneen su ko koy defee xalé xale yëpp liggéey ndax xale yi soo ñu dem sa yaay feebar wala nga xey ci li wara tak ci takul lolou mo waral ñu dem ci géej gi rek wala nga am sa malade war ko yóbbu hôpital te malade ku fay dem xam nga soo yoru do doo faju comprendre yoy moo tax ñu ray seen bop dafa metti neexul ci xol metti na mom franchement parler moom neexul ci xol vraiment neexul ci xol euh euh beneen question bi ma lay laaj euh, yow euh, maanaam ki nga xam ne mooy Balla gay 1 kooku noonu mu feebaroon fu feebar bu metti allahu muhammin euh, ñu gis ni moom daal bu mu décidé ba tey dañoo gis coow bu topp si ginnaawam parce que nee nañ moom déglu ma soo ma dégloo dinaa ñëw parce que coow li maanaam moom feebar na nit ñi di ko seetaan surtout ki nga xam ne mooy turandoom mooy Balla gay 2 nee nañ dañ koo seetaan ba fa non non nit ñi ñooy wax nit ku la wax loolu amul day duul loolu ku la ko wax amul c'est pas di ku wax loolu day duul maa ko wax. Balla Gaye numéro un sunu yàlla ko yàlla xaare àjjana moo ñu yar comprendre nga Balla Gaye numéro deux Balla Gaye numéro yi moo ko yar lu mu xam paa bi la taxawu na ko ba mu mënee tey jii Balla gay lu ko war ci li ko war ci papa ji paa bi def na ko papaam la moo ko jur paa bi tamit yemewul ak Balla gay fi mu tek Balla Gaye tegu fa ay dom yi mu jur comprendre nga ñi war di wax nak ñoo xam seen affaire kula wax lool waxul deug c'est pas vrai. mais Sénégal sénégalais si ñoo ko wax de. sénégalais fi kenn mu leen té wax man xamna yalla xamna ñeneen xamna ay dom pa bi xamna pa bi nañ ko ñaanal suñu papa la yalla ko yalla xara aljana Balla Gaye Balla Gaye de gàcce ngalama lim wara def ci pa bi def nako bi pa bi feebaree taxaw nako comprendre su yobbu hôpital jotee mu yobbu ko hôpital su tabaski jotee lam ko wara def mu defal ko yobbu nako makka bala Gaye gàcce nga laama paa bi tey génn na àdduna Balla Gaye taxaw na ko dénk ko maam li maamu laay ñu ñëw ñu jógee foofu ñu dem ba ñëw ñu daal toog ne jënloo ma kenn xorom lu fi war ci dëj bi naa ko def Balla Gaye gàcce ngalaam nan ko ñaanal yàlla musal ko cat at làmmit du nuyu sama sëriñ ba sëñ euh, sëñ ibu ibu seenu laay ibu seenu laay waaw jeune de mara bu cantal mara ibu seenu laay ku baax ku am diine ndeysaan foo ko fekk rek da nga naan Ibou Seyni Laye tubaarikàlla masàllaa yàlla na ko yàlla la fa cet maa ko koy jël Balla Gaye 2 daal ku yabu ñaanal ko te ni ko te bañ koo piis te ne na ko jàkk ku wax Balla Gaye 2 taxawul paa wala def waxoo dëgg c'est pas vrai Balla Gaye man lu nekk maa ngi koy dégg man lu ne dégg naa ko lool nga wax noonu ko taxaw ak man wax ma ko waaye xanaa loolu yow fan nga déggee lool sax yow foo ko déggee xanaa ci site internet yi ku wax loolu site internet waxul dëgg site ba koo ka ko wax ak bërëm si baat ka ko introsé ku ko yëpp dañuy duul. ba ci jàppkatu micro. koo jàpp micro ku ko wax da ngay duul. maa ci caméra bi. ba ku ko wax da ngay duul. ak ñi doon fekkee. ñëpp dañuy duul. maa ko wax ku loolu ci Balla Gaye day duul man maa la ko lool. Balla Gaye su la c'est mon frère comprendre nga c'est mon frère su ma la xam nga ma la wax su la c'est mon ku la wax loolu c'est pas vrai man xam na lépp Euh, beneen question bi ma lay laaj ah. gis nañ ni yow waa déglu ma damaa dépassé loolu maa ngi ci beneen question riiru loolu bu ko faale ku la laaj loolu ne ngay hmm, ma waxati loolu Balla Gaye jàppale wul paa bi ak hmm. da ngay duur waxal loolu liiru ah, nee na ku ko wax da fen maa ko Balla su ma rakkal damal xam naa te Balla xam naa fi mu teg paa bi paa bi yàlla ko yàlla xaar àjjana xam naa fi mu tegoon Balla gis nga lu mu feebar feebar su tëddee su gisee Balla Gaye ñëwee rek mu tane. barki Sëriñ Fallu Mba ndax bëgg ko dafa bëgg Balla. ndeysaan moo ko yar bu ndaw. bëgg dafa fort. voilà noonu la fa demee nag yàlla na ko yàlla xaare àjjana suuf Cambérène yàlla na sedd si koom di ñaan suñu papa itam ku ci mel père Aline Sey yàlla na ko yàlla xaare àjjana père Gora Seck Cheikh Mbeng Cheikh Sey yàlla leen yàlla xaare àjjana ak euh, père Mor Fadam ndeysaan pa bu baax suñu papa yaa ngi dem rek kon nag na rafet ñu fi des na rafet ñu te jàmm comprendre àdduna amul solo fii loo fi gis dafay jeex nañ yéenante jàmm te boore xol yi suñu booree xol lu nu bëgg dañ koy am. man euh, booree wuy ma beneen question bi ma lay pose gis nañ la tamit nga daal di jël vol daal dem fi nga xam ne waaw dama demoon pour entraîner ji. yow kañ nga nekk nga. sëñ yi non déglu ma non jarul ngay ree man du ma la miimal dara man man dangay ree man réew ma. waaw dama lay laaj non non du ma la wuyu xaw ma. man sur ba ma yow de li nga sol rafetul li nga safar li nga sol lépp a bon. li nga sol lépp xoolal lii lii lii lu baax lii. lii waaw da ngay kan mooy gees. kan mooy gees. man si lan laay gees lii. man su dee lii moo tax nga may jéem a charmer ko woo ko aja ka aj wàcc nga man gis naa lu ne. ajuma ajuma dafa ndànk rek bin bin. waaw dafa ndànk waa déglu ma dama lay wax déglu ma rek waa déglu ma man xasuma la xasuma waa waxuma la sànce woo sànce nga waaye lii li ngay ajee nii man moo ma jaaxal te nga wàcc sa sër yi wàcceel sa robb yi moo gën sa yi ngay def waa lii genre lan lay nuru lii non man dama amatul dara lu may wax ndax fi ne <laughs> non dama xam ne yii ngay def dafa amul solo man nga déglu ma man kilifa laa gis naa lu ne man dara jaaxalu ma sa yi ngay def ka ajëkka kay waaw wuy ma xam nga sànq wuy ma xam nga déglu ma déglu ma may danga wuy ma xam nga sànq dama la wax nga ne ma ne la loo doon def état jeune yi nga ne ma da nga doon entraîné da doon jël poids yéeg yow ana poids bi nga doon jël voilà dem fekk tombé rek ñu tëj saali ok muy corona bi <laughs> mais gars yi ñu ngi doon dem géej di daw waaw man entraîné wu man de maa ngi fi maa ngi daan entraîné daal benn affaire laa lay gërëm laa lay wax. waaw déglu ma ba eh xool dama eh xool soo ma lambante ma nokk la nga may jéem a kii bës eh, dama lay arrêté ah eh, waaw ma bësati ah dama sama waaw ça va na fa émission bi yem non non waa jeex eh, non da ngay def interview ah. yow xoolal ubbil say bët nga xool ndax damay def interview wala defoo interview. laaj sa yi nga may def yëpp man tullu naa yii man lii nga may def jaaxalu ma waa déglu waa waa danga may déglu man yi ngay def tourna sa ajak sa aj sa biin yek man gis na looy man li jaaxaluma man dama deg tamit ñu naan xali jigeen jigéen yi ñoom ñooy wax nee liri liiri dafa bëgg liri def dafa bëgg ay liri dafa bëgg ay taal bëgg taat yow ko yow ko rew nga no da nga rew no da nga rew bii léegi da nga rew no da nga rew man sa morom la bëgg naa bëgg ah non dama la da nga réew man du ma sa morom ah. non dama la eh dama la man du ma sa morom ah. yow yaa réew waa arrête. yaa may gaañ liir yaa may gaañ. man dama la du ma sa morom. Eh, non dama la man dama la du ma sa morom. waaw ça va doy na. kuy ma daa jeex jeex dama ne li nga sol ni dafa nice laa wax. booy jeex na. Eh. non non pare naa ndax yow nga réew da nga réew man duma sa morom non da man duma sa sooy taxaw man naa am ay nga bëgg a taat man war ngaa taxaw man naa am ay nga bëgg a taat soo tax nga sol sa sol yi nga sol di def sa yu bon yi di waa lii pour lan la léegi yow dama lay laaj yéen pour lan la lii lan la wuy ma waa baal ma lan nga waaw man maa ko def man miy wax ak yow wuy ma waaw laaj man maa ko def man miy wax yaw yow waaw déglu ma rek dama lay laaj man laa man miy wax ak yow man maa ko def ok waxatuma waxuma waxatuma sa yoon nekku su rafet ak su rafet sa yoon nekku ci. sa yoon nekku ci. may sarme man noobuma la tey noobuma la ëllëg faalewuma la lijjantiwuma la ok su dee loolu nga xam. sa yi nga di dama sarme. waaye man heureusement nag man waruma ku may nopp. yow dafa taat neen moo la desee. nobuma nobantewuma. non ndax yow xam nga ni. man damaa woowantewul ak yow. barki Serigne Fallou damaa woo. ma envoyé. waaw ma wane ko. wane naa ko wane de. ma wane ko. waaw. sa diggante yàlla. ah non dama lay laaj dama koy wane de barki Sëriñ Bamba Mbàkke dama koy ah, wane. bari na. vidéo boo defee taatu neen sax envoyé nga ma ko. waaw. waaw si non dama lay vidéo boo defee taatu neen. moo tax waaw non looloo c'est pas vrai waxoo dëgg vidéo baa ngi nii. Ah, c'est pas vrai c'est pas vrai. yow bi ma la envoyé taatu neen yow loo ma envoyé. man mii lan laa la envoyé. lan laa la envoyé man. waaw damay laaj lan laa la envoyé. waaw léegi loo bëgg a foofu génneel li ma la envoyé nga génne su fekkee man na envoyé naa man li ma la envoyé li nga ma envoyé mun naa ko génne man génneel su fekkee man envoyé naa sama téléphone génneel su fekkee envoyé naa la man génneel eh, génneel ma génneel li ma envoyé ah, non dama lay wax génneel ma génneel li ma la ah, envoyé yow li moo tax man gis nga vraiment yow yàgg nga maa topp bëgg a def ak man émission di ma woo guddeeg bëccëg ñëw ma maye la soxna si damaa jàpp wala ku at ku la jox sama ne nga expliqué nga ma yëpp waaw wuyu ma léegi ndokk saba bi ma la woowee da nga maa wuyu. que yaa may dégg bu baax ñaata yoon nga ma woo wuyu ma la. man mii man dama laa mos a woo jël sa téléphone yow mi liiru yow mosul am te du mosa am yow kan may jakarlo man ni ma yow nga mané man ma lay ma lay wa nga bañ jël lolu amul fenn fi Sénégal la xam nañ lépp dofuñu dina jàppuñu dewuñu daaju waaye xoolal lu fi taw tune dañ koy dégg té su boba dañ koy sango suñuy poj suñuy yaram di xéx di nas na si yéen góor ñi ngeen di gees ni mo nekkon émission tay sama diggante ak nga xam moy liru Lirou ma ngi leen di remercier bu baax baax ngeen nga xam ne yéen ay waa Diassigui TV li laa leen sa wéni wuy ma dafa samay wedd laalu la jegew la man sama wedd bu la laalee da ngay dugg ci biir seetu bi. xam ah, nga suñu li nga romb fii doo ma doo doo doo ma am. man xam naa si loolu. billaay moo tax ma gis rek doog doog dugg si ma romb fii suñu li ma romb fii dégg am ndax yàgg maa wut. yàgg nga maa wut soxna wut nga ma gauche wut ma droite man du ma sama man bu du ma doon ma doon <laughs> ndax nii ngay liggéey du nii non li liggéey du nii war nga seetaat sa liggéey nii liggéey du nii vraiment non non liggéey du nii ndax soo taxee ak man ma xam nga yéen lii moo tax lu nekk di leen dal ndax ñëw nga ak sama wax ma loo neex naan ma man damaa bëgg jigéen man loo ma xamal ma yàq nga am da ngaa bëgg taadu rëy loo ma xamal man su ma bëggee sa taat yi tam sa taat yi bëgguma ko ndax sa taat dafa late lu ne yow taatu ne lu ne fa taat lotee rek koy mu ngi fay late ndax gis nga sama taat yi dama koo bëgg te fonk ko te gis nga sama taat yi damay sol lu jot di sol lu baax ndax xëy na sol naa robb waaye dama cay jiital kii bi saar waaye yow mi man awmatuma baax na jërëjëf